tey su ngeen fi taxawee ànd ak Ndeye Saly Diop Dieng Ndeye Saly Diop Dieng ni moom day ñëw indi ñu masque yi du masque yi rek nga fi mas a indi de ndax woo nga ñu fii ci financement woo nga ñu fii première dame barki dem boo Ndiaye la ñu yónnee 3 millions te nit ki ku ko yëgul faale woo ko doo ko def nit boo ko yëgul faale woo ko doo ko boole ci sa dara mais nag heureusement bi nga xamante ni président yëg nañu faale na ñu yow mi nga xam ne yaay ndawam nga yëg ñu faale ñu te nag dinaa la wax ku njëkk yow borom dekk ni ko tëddaar waaye maam Fall tamit yàqu ci dara ak ñi muy àndal ñoom madame Ba ndax tey ji heure bu ñu sumbee sumba ñun gii ba taxaw tey jii ñu dégguñu si ndey sali nag aat ah nag maam Fall dañuy woo dañuy gund xataal dañuy dañuy përëj dañuy door dañuy rëkk naan ñu wuyu leen président te na wax dëgg yàlla na ma ci yeboo ci ba wax nga jël ndax Macky dañ koo mës a bëgg démb ak barki démb xam naa sax am na loo xam ne war ma ko cee dugal waaye dinaa ko ci sama ministre Cheikh Kanté muy sama sama lépp jàppale ñu góor ak bi góor ak biti gauche droite tey ji boo xoolee tey ji liñ taxaw fii naan premier naan Macky Sall président Macky Sall ñoom ñu taxaw ñëpp kenn ko ne xam na ne Macky Sall fekk nañu fu nekk yërëm nañu fu nekk yiir nañu fu nekk xëy na nag mbas mi nag yàlla moo ko indi falaa jëm ndax nag mbas mi yàlla indi kooku dogal suñu borom la waaye ay waaye Macky Sall bu sañoon kenn du jooy kenn du yëngatu Macky Sall bu sañoon kenn du am lu la naqari Macky Sall bu sañoon kenn du la yërëm Macky Sall bu sañoon kenn du ñu kii dañ ñuy yee tëjuñu nag xa xataalu ñu waaye na xëy na yàlla mooy dogal noonu ay mbiram muy mbas mi dugg ci dëkk bi ñu ngi ñaan ci kattanu borom bi mbas mii nga xamante ni moom yàlla fi yàlla teg ci daraje Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla teggi mbas mii ñu yàlla yónnee ba tax Ndakaaru gi bëgg a taal boppam ak dëkk yeeg dëkk yàlla ko fi yàlla jëlee. lii nag da koy jàppale ci xeex bi ci xeex bi mooy lan président de la république wax ngeen ko wax lu tax mu jóg pour xeex bi mën fi jóge kon fii ñu toll nii bu leen wàcce seen loxo bu leen bàyyi bu leen bàyyeeku feebar baa ngi ci ñun virus baa ngi ci biir nit ñi madame la ministre masque yi mu indi pour ngeen fagaru ci la dañ ne fagaru leen moo gën ngeen di lakkle kon indil na leen ay masque masque yi pour lan la pour ngeen koy teg kon fii ci quai de pêche bi jàppale leen ko ci loolu jàppale président ci loolu wax ngeen teg ngeen euh, gel bi am ngeen ndox bu ngeen di raxasoo masque yi ngeen koy mottalee da ngeen koy jàppale leneen muy lan mooy ku ngeen gis ci marché bi tamit te solul masque fexe leen ba mu sol masque. président wax ngeen ko léegi ñëpp la ci boole bi li amul tamit da fekk mu jàppale jigéen ñi teg leen au cœur de son programme xam ne jigéen ku leen jàppale jàppale nga réew mi mu jàpp ci bu baax nag. andi nag ay programme yoo xam ne projet yoo xam ne bu ci ne jàppale jigéen tax mu jóg yàlla dogal na mbas bi njëkk suñu réew te mbas bi nag bu ñu koy wax jigéen ñi nag ñoo ci gën a am coono ndax ñoo ne ci kër yi. bu jafe-jafe togg ñun ñun la bu dépense matul ñun la suñ doom feebaree ñun la ko ñun nag ñoo nekk en première ligne kon jàppale boobu ñu gën ne président mi ñu ko jàppale te lépp loo xam ne itteewoo ngeen ko pour jàppale dinañ jàpp incha allah nañ fi dellu si waat xoolaat ba yéen yi nekk ci quai de pêche yi naka ma seen jafe-jafe lu ñama mën a jàppale jàppaleen ko